jaaxle taaju na ban jaaxle taaju na fii ci allo dakar point com kër rajo tamtam online man la Modibo toogal leen fii tey jii nii mercredi 26 avril 2023 ngeen koy dégloo en exclusivité fii ci rajo allo dakar point com yéen a ngi koy dégloo ci seen téléphone bu ngeen nekkee fii ci Amérique Canada ak territoire américain yi ci 518 781 2227 518 781 22 27 su ngeen nekkee France mun ngeen ko déglu ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26 auditeurs yi bismillah ni ñu koy defee du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi fii la ñu koy waxtaanee fii la ñu koy taataanee koom-koomu Sénégal koom-koomu Afrique ak koom-koomu àdduna bi ñu ànd ci ak sunu partenaires yi. banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis lëkkaloo ak euh, calpe électronique Kapay bi jagal Sénégalais yi euh, particulièrement euh, immigré yi banque de l'habitat du Sénégal mi ngi leen di yëgal ni tey ñi ngi doon wecceekoo dollar bi un dollar pour cinq cent quatre-vingt-seize francs CFA loolu lañ doon wecceekoo xaalis bi un dollar cinq cent quatre-vingt-seize francs CFA banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis mooy partenaire u rajo Allo Dakar auditeurs yi bismillah bismillah fii ci émission ban jaaxle ngeen koy dégloo ci allo dakar point com may Modibo ak bi leen fi toogal ak gàngoor bi ñoom Cheikh Lay Adja Pend Cheikh Malick ñoom Fourier ak waa mouvement bi alors bëgg rek jàll ci li nga xam ni mooy actualité bi ni mu tëddee tey ci ci réew ma Sénégal li nga xam ni mooy coow li alors journée bi yëpp dama leen programme loon waxtaan bi nga xam ni Babacar Touré Mandiou mi jiite plateforme sociale boobu tudd Kéwolu Kéwolo mu am ay jàngat yoo xam ni def na ko ci mbir mi tax ñu convoqué ko ca police ba fi mu ne teg nañ ko loxo mu bokk ci ñi nga xam ni victime mu ramasse gi Macky Sall jibal ci Sénégal jëmale ko ci képp kuy wax ak leeral askan bi liñ ci mën a jàpp rek mooy Macky Sall ak gàngooram bëgguñu Sénégalais yi yeew moo tax képp kuy jéem a ibbi seen xel ci wàllu ni ñuy doxale réew mi boo koy def na nga préparer sa mer gàddu waajal sa famille te xam ni dinañ la jëlsi danañ la ramasse yóbbu la police yóbbu la kaso benn waa ji ñuy wax Moustapha Diop ca Walfadjri moom it ramasse nañ ko tyrannie dictature bi dootul lu ñuy laam-laame Macky Sall daf ko assumer daf ko wax ca njëlbeen di ko jëfee léegi sama jàngat nag mooy sénégalais yi réagiruñu ni ñu war réagir xamuñu porté li nga xam ni moom la Macky di def xamuñu ko sénégalais yi xamuñu lan mooy république parce que buñ ko xamoon duñu toog di seetaan dañ leen gëmloo ni que république mooy état bi dafa yor yatam ku ko neex mu dóor ku ko neex mu ramas ku ko neex mu faat ku ko neex mu fetal enquête du am dara du am situation boobu la ñu nekkee Sénégal léegi république état moomu ko askan bi ñooy dépositaire mbir mi sanc république pouvoir bi askan bi ñoo ko moom nit ñi askan bi xamuñu ko leerul ci seen bopp république comme nañ ko expliquer ci ñi nga xam ni bokk ñoo ko njëkk a sanc république boobu ñu tubaab yi indiloon ca seeni jamono lañ ci wax la koy sooke fondation yi amul ci Sénégal gi ñuy wooye république amu fa nit ñi dañu nekk ba léegi ci la seen maam yi doon xalaate askanu Sénégal ba léegi ñi nga ca la maam yi doon xalaate mooy buur mooy boroom dëkk bi sous-entendu lu ko neex def defe naa Macky loolu la comprendre dafa comprendre ni signification wu moowu république sénégalais yi dans leur grande majorité xamuñu lu mu xamuñu ko moo tax mu gis ci bunt dugg ci di ko defee ni nga xam ni noonu la ko sénégalais yi comprendre mooy buur mooy bumi lu ko neex def alors Macky mi ngi ci bi ci li ko neex damay déglu wax ji nga xam ni mooy am ci li xew foofu ci Ngor dégg nit ñi ci plateau télé yi ñu naan six mille mètres carrés yooyu ñu doon xëccoo waa Ngor di ko xëccoo déngal jàppal bàyyi kërti kërti ndekete yoo nee nañu waa Ngor moomu ñu ko état bi moo ko moom ci république état moomul suuf mënul moom suuf parce que suuf si moo mag état askan bi ñoo mag état naka la état naka la askan wi ak suuf si mag état ñu bëgg lu gëmloo ni état moo moom suuf si moo moom six mille mètres carrés yi amul sens. askan bi moo moom suuf si yàllaa ko ko ja yàlla moo ko jagleel askan bi daf ko ci jox dominion état bi li ci li li ko ci war mooy mu gérer suuf si mais six mille mètres carrés yooyu ñuy xëccoo foofu ci ci ci Ngor askanu Sénégal askanu Ngor surtout ñoom moom suuf si naka la ñu def ba état bi génne ay kayit ni moom moom moom suuf si kooku beneen wax la loolu à la limite sax sàcc la gëmloo nit ñi ni état moo moom suuf amul sens. situation yooyu moo lëndëm ci bopp nit ñi nit ñi xamuñu lan mooy état xamuñu lan mooy république état ak république boo xam ni 1960 la juddu askan bi nekk nekk fi depuis ajag-jag état boobu moo ñëw tey ni leen suuf sii man maa ko moom mbiru république ak état dafa musul leer ci bopp askanu Sénégal musu ci leer parce que dafa am ay gëm-gëm yoo xam ni moo tax mu jafe lool mu leer ci boppu nit ñi mbeddu buur la président mooy buur gëmloo ni ko lu ko neex lay def nit ñi taxaw ci télévision ak rajo naan wéy président dafa war di dóore dafa war di reyaate yooyu yëpp ñàkk xam état ak ñàkk xam république moo ko waral foofu ngay dellu see nag di blâmer sabotage bi ñu saboté ci jàngukaay yi fi ñu waree ibbee xelu askan bi fi ñu waree def xam-xam ci seen bopp bërëb yooyu muy école moom la ñu saboté te commencé wul ak Macky Sall na commencé wul foofu dañu nëxloo xelu Sénégalais yi dañu clochardiser xelu Sénégalais yi dañ leen bañal seen droit wu xam dañ leen bañal seen droit wu jàng moo tax sénégalais yi toll fu ñu toll mu metti lool nag c'est c'est c'est c'est dur li waroon nekk xéewal jëm ci askan bi yépp ñàkk xam état ak république moo tax xéewal yooyu ak droit yooyu bañ mënul yegsi ci askan bi ndax am na noo xam ni bu ko askan bi xamoon ci état ak république kon nii affaireu pétrole bi demee nii affaireu or bi demee nii mbiru phosphate bi demee lépp luy mbaaxub yàlla génn ci suuf si du demee ni mu demee gëm-gëmu bi ñu am ci état ak république gëm-gëm bi askan wi am ni que président bi lu ko neex def moo tax Macky Sall am sañ-sañ jël pétrole Sénégal bi bazarde ko comme ni mu ko defee nii moom ak xaritu tubaabam ak ay ñooñam jël or bi jël lépp lu baax du jóge ci suuf def def ci li mu def parce que am na dëkk yoo xam ni seen askan yeewu nañu yeewu goo xam ni lii Macky Sall di def ci biir république gu Sénégal dëkk yooyu président bi waxuma la sax ñeme na ko def xalaata ko def sax jomb na ko dañ ñu bëgg gëmloo ni fu am pétrole rek am xeex c'est pas vrai ay dëkk yu bëri ngi ci àdduna bi yu am pétrole ba ñu amee pétrole la seen askan tedd la seen askan xam da ngay jël dëkk yu mel ni Norvège pétrole bi daf ko changé complètement kenn mësul dégg ni Norvège da nga fay xeex demal ci dëkk yenn dëkku naar yi nga gis ñuy dundee ndax ña leen jiite jomm nañu def li Macky Sall di def parce que dañu gëm yàlla Norvège ak dëkku naar yooyu ma leen wax yëpp nag dañu gëm yàlla Amérique pétrole a ngi fi mus nga dégg ñu ni dañ fiy xeex pétrole musul am xoolal ni ñuy dunde du dëgg pétrole fu mu am xeex am fa du dëgg Babacar Touré dellusiwaat ci ay mbiram liñ ko woowee dafa mujj nekk sax lu positif parce que am na lu ñu xamul woon jot na ko wax démb bala muy dem tey jii nii dig ñu koy teg loxo lan moo tax ñu téye Babacar Touré dafa am benn waay bu ko porter plainte waa ji amul titre day usurper liggéey maanaam danaan man commissaire laa wala renseignement général du dëgg dafay fen waa ji mi ngi tudd Frédéric Nappel Casamance la dëkk Ousmane Sonko daf ko weer ci benn conférence de presse bu mu mës a def ni ko waa ji traître la jaam la Babacar Touré dafa gën a sore ci ay affaireu Frédéric Nappel boobu dañu tudd waa ji turam ci affaireu benn tubaab bu ñu rey ci Sénégal niñ ko reyee dafa xaw a doy waar parce que daf ko doon digaaleeg beneen sénégalais bés bi muy dee tubaab bi xaw ma naka la situation bi demee ba mu dem di langaamu ci oto sénégalais boobu sénégalais bi di zigzag ci tali bi ba tubaab bi mujj daanu bopp bi dal ci dër bi ci o- ci tali bi bopp bi xar ñu yóbbu hôpital waa ji dee mais bi affaire bi amee ci banlieue bi foofu la amee jour boobu waa ji Frédéric Nappel la xaw ma doon jàll ci boor yooyu fekkee affaire bi mu wàcc ci otoom ñëw ni nit ñi moom commissaire de police la yore benn walkie talkie la xaw ma toog walkie talkie mooy espèce su poste rajo yooyu policier di yor tey suus bi mu wàccee daa di dem ci oto tubaab bi jël pièce u tubaab bi jël fetal tubaab bi fetal fetalu tubaab bi jël ay affaire tubaab bi wàcc dugaat ci otoom dem yoonam avant muy dem sax fekk na pompier yi ñëw am na yeneen affaire yu mu jël yu tubaab bi moom aussi ci pompier yi bi mu ñëwee ci pompier yi dafa déclaré ni moom commissaire la te waa ji du commissaire 2014 xaw ma lañ ko dàq ci police bi tëj nañ ko fi sax kaso bi mu bi mu demee gendarme yi bi ñu ñëwee wax ak pompier yi pompier yi ni leen waa jooju fi jógee léegi moo présenté wu comme commissaire de police jël na pièce waa ji ci sunu loxo dugg na ci oto tubaab bi am yu mu fa jël ay fetal ak yu mu xamul dem na yoonam gendarme yi bàyyee ko xel ba benn jour yàlloo yàlla gendarme yi dajeeg moom ay booru rond-point RTS foofu ci centenaire daal di ko coince arrêté ko ñu yóbbu ko tëj ko kaso François Nappel la xaw ma Frédéric Nappel Nappel daal la sant waa jooju la ñu dàq ci police bi muy wër di woote naan moom renseignement généraux la ak policier la commissaire te dara du ci dëgg waa jooju mujj bi dafa ne bokkoon ci garde rapproché wu Adji Sarr Adji Sarr borom fen yu rëy yi waa jooju dañ ko doon wone télé bu Adji Sarr taxawee moo Gabriel Kane xale boobu mel ni mel ni mel ni mel ni gëlëm waa ji la ñuy wone mooy diriger di won yoon bi fi kii war a jaar comme garde du corps quoi sol costume ak lépp waa jooju bu ñu daan indi Ousmane Sonko ci bureau juge bi toujours day nekk ci couloir yi jaxasoo gendarme yi jaxasoo ak policiers yeeg renseignements généraux may laajte ku ñu dàq police 2014 amoo titre policier titre renseignements généraux yi muy woote ay fen la kan moo ko dugal ci biir système bi ba muy nekk ci couloiru juge bi saa yu ñu indee Adji Sarr ak Ousmane Sonko wala saa yu ñu indee Ousmane Sonko lan moo ko planté ci environnement immédiat wu Ousmane Sonko kan moo ko jox autorisation mu jege noonu Adji Sarr jege noonu juge yi am autorisation di nekk ci couloiru waxuma la sax biir palais bi mais ci couloir bi nga xam ni foofu la bureau juge bi nekk lan moo ko mayoon muy nekk di jaxasoo ak waa renseignements généraux ak ak ak ak police ak gendarmerie lan moo doon mission ci ku ñu tëj kaso taqal la ci tubaab bu dee waa ji dañ ko yónni woon am na lu mu doon waaj a def moo tax bi Ousmane Sonko ni ci biir gaañ yi am na ci ñoo xam ni dañu pare pour rey nit te pour ñoom du dara nappel bii ci la bokk explication yi ma leen jox Babacar Touré ci gémmiñam laa ko dégg moom la développé démb ci plateforme am Kéwoulo situation bi graaw na Sénégal graaw na de et Babacar Touré bi mu demee parce que am na yeneen accusation yu ñu teg ci ndoddam nee nañu suba lañ koy présenter procureur ñaar moo mun a am mandat de dépôt wala ñu takkal ko la muy xew la mu tànk yi Amin waa ji journaliste la quoi te domaine bu domaine bu sensible ci journalisme la nekk journaliste d'investigation du waxantu ah waa ji lu mu la wax daf ko gëstu lu mu la wax daf ko saytu te lu mu la wax doo rëyaat c'est même pas que sénégalais yi dañuy seetaan dañu xamul parce que dañu defe ni état nguur lu ko neex def dara du ko ci fekk et mun nay demee nii ah mun nay demee nii ba deux mille vingt quatre mun na demee nii ba deux mille cinquante non Modibo non loolu mënul am c'est pas possible non waaye sénégalais yi gis nga dañuy dañuy dañuy daas fanaanal fi mu ne Macky Sall bàyyi rek ah bàyyi ba élection yi ñëw naa xam lépp dëgg waaye non Sénégal du tàkk bu ko fi bëgg taal sax finalement yaay tàkk nit ñu baax ñi fi tëdd wal Abdul Xaadir Jilaani rabiyallahu taala anhu ma nga tëdd Irak teewul Irak def na dóom ak bërëb yu bëri yu ni ay nit yu baax tëdd ñun ñoo gëm irakien yi gënuñ leen injustice fu mu sax jàmm du fa am Sénégal fi fi mu nekk nii waxuma la injustice dafa sax dafa meññ bari na fa de injustice bi bëri na Sénégal de bëri na fa torbe ci domaine boo dégg nag domaine boo jël injustice bëri na fa nit ñi seetaanuñu dañu xamul mennam Ousmane Sonko moo fa takk fitam di jéem a yee nit ñi mais nit ñaa ngi nelaw ñi ngi nelaw parce que affaire yi Macky Sall nekkee nii di ko def jommatul kenn ah démb nit dof la àndandoo àndandoo Pastef yi journaliste Moustapha Diop tey Babacar Touré ëllëg xam nga kan la yow mii di ma déglu wala sa papa wala sa yaay wala sa mag wala sa rak ëllëg yow mii la nar a doon yow mii déglu non yow yow laay waxal jarul gestu yow yow mii laay waxal dafa am benn histoire bu ma benn boroom xam-xam ma sa nettali ci ñàkk artu bu jotee boo ko deful di nga àtte Cheikh Abdoulaye Dieye yàlla na yàlla looy ko leeram fa mu tëdd Cheikh Abdoulaye Dieye allahu waahidun papay Cheikh Bamba Dieye politicien wu Ndar bi dafa ma mës a nettali benn histoire mu ni dafa am benn waay ju amoon néegu ñaxam këram nee na jabar ji toog ci pegg bi di togg alors bi muy togg am ñaari si ndax yu doon xeex ci kaw néegu ñax bi nee na si ndax yi xeex di xeex di xeex di xeex di xeex ba mujj bi benn si ndax bi daanu ci fourneau bi bi mu daanoo ci fourneau bi nee na gereesu si ndax bi daal di tis def ay étincelle étincelle bi tëb ci néew ñax mi néegu ñax mi commencé tàkk néeg biy tàkk di tàkk di tàkk di tàkk benn si ndax ba ca desoon ca kaw néegu ñax ma moom it lakk gi fekk ko fa lakk ko moom it gereesam tiis def étincelle tëb dem dal ci beneen néegu ñaxu benn dëkkandoo bi kooku tamit néegu ñaxam tàkk leçon bi mooy ñàkk àtte ba amoon ca njëlbeen suñu àtte woon ñaari si ndax yi ca njëlbeen kon heure bi ñaari néegu ñax yi duñu tàkk loolu moo doon leçon bi tey home lesson ramener mbir moomu nag ci Sénégal ak ni muy doxee léegi xam ni seetaan la gën a nuru ko leneen seetaan ñuy ramas nit ñi seetaan ñuy jàpp nit ñi seetaan seetaan seetaan seetaan ku ibbi sa gémmiñ ñu tëj kenn du wax loolu moo nar a indi fitna bi bi kenn bëggul loolu moo nar a perte loo Sénégal ñaan baax na yàlla nañu yàlla musal ci lii yàlla nañu yàlla musal ci lee dama gëm ni nit yi boo ñaanee ba pare da ngay sabablu dañ ciy dugal sa loxo Sénégal dañuy toog rek di ñaan ñaan rek ñaan tàllal loxo rek sabab lu amu fa ndànk-ndànk Sénégal ngi yàqu ndànk-ndànk par dose yu ndaw lañ ñu koy jam dañ ñu bëgg yóbbu fii Congo tollu ak Sassou Nguesso dañ ñu bëgg yóbbu fii Togo tollu ak famille Eyadema dañ ñu bëgg yóbbu fi Guinée équatoriale toll ak seen président boobu dañ ñu bëgg yóbbu fii Gabon toll ak famille Bongo foofu lañ ñu bëgg yóbbu et seetaan bi ñu nekkee bu continuer kenn mënu ci dara danañ fa yegg dinañ fay yegg seetaan bi bu continuer danañ fi toog ni Macky Sall mi ngi ci nguur gi depuis quarante ans non Modibo yow say wax dafa rëy nag yow gis nga non je te dis hein. ndegam dañuy toog ba imam grande mosquée wu Dakar xooli ci minbaar bi ñeme ci taxaw di wax ay waxu jaam comme ni mu ko waxee ci korité bi nga xam ni Macky Macky Macky Macky Macky Macky taxañ na lu bari taxañ na lu bari amul dara dara fi mu nekk ni lu ko mën a téye à part askan bi jóg jàmbaar jàmbaarloo moom amul lu ko mën a téye lu dul askan wi am benn général buy taxaw ni Macky Sall déet général boo xam ne day yëkkati loxoom askan bi génn teg seen bakkan ci line bi te ki ko gën ki ci gën a nekk ci position boobu mooy Ousmane Sonko moo tax lu nekk ñu ngi koy jéem confirmé na ne Ousmane Sonko ni ko effectivement li fi amoon temps yële résultats yi génn anal analyse yi ñu doon def ci produit boobu ñu ko pompé woon génn Ousmane Sonko moo ko wax ci gémmiñam tey nee na affaire bi tentative d'assassinat la woon liñ ko tuur poson la waxuma ko man Modibo waxuma ko de Ousmane Sonko ko wax bu ma fi kenn convoqué waxuma dara poso ko wax président Ousmane Sonko moo ko wax loolee ñu ko pompé woon Ousmane Sonko nee na résultat bi génn na tubaab yi def nañ ci ay jàngat yu xóot nee nañu liñ ko pompé mënoon na ko rey ñii fi newoon naan ay bineegar lañ ko pompé ay ñeexu njambaan posan lañ ko pompé posan
soow
affaire bi garaaw na de ciw mais Sénégal léegi sama waay yi C'est- c'est- c'est- doy na waar ah doy na waar am na yàlla na ñu yàlla musal ci fitna ak euh, liy delloo gannaaw réew damay seetaan li xew foofu ci Soudan espace su 24 heures ah dëkk bi yàqu na c'est fini nit ñaa ngi daw di génn soudanais yaa ngi ci mbedd mi di yor seeni matelas seeni kàddir ñi ñenn ñi pratiquement dañu daw génn seen kër yu balewuñu dara imaginez situation boobu au Sénégal sorewuñ ko ah sorewuñu ko parce que fi mu ne saagante beeg wax bu ñaaw bi dafa doyatul gaa ñi dañu bëgg laale saaga beeg wax bu ñaaw bi yàq der bi doyatul léegi fetalante ci la ñu ne comme li ñu def dàmbuj comme li ngeen gis foofu nervi yi euh, euh, Farba Ngom yi di ko def ñi ngi yéeg escalier yi ndànk-ndànk jëm kaw ndànk-ndànk par dose posone Ousmane Sonko fetal dàmbuj guddi gi indi nervi yi ci biir kër Farba Ngom ñuy fetal nit ñi ñi ngi yéeg ndànk-ndànk fi ñu jëm jàmm amu fa fi ñu jëm du jàmm Sénégal de xeex bu méttee métti métti moo nar am Sénégal xeex bu méttee métti métti métti est-ce que révolution bi révolution bi nit ñi ñaan bi Khalifa Niass doon wax euh, l'autre Niass plutôt son frère là est-ce que révolution bi papa sëñ Moustapha Sy doon woote la bu dee boobu la nañu nañ nañ ci foncé mu jeex ñu jóge ci ku nekk xam sa place parce que Sénégal jamono jii dafa am ñoo xam ne xamuñu seen place xamuñu ko et quelque part république bi am na ci responsabilité parce que système bi ni muy sélectionner ñi war a jiitu système bi daf ci am faay faay yooyu bu amul woon ay ñu mel ni Macky Sall du ñu jiite Sénégal ay Farba Senghor ay Farba Ngom ay Mamadou Massaly ay Idrissa Seck
bu république bi normaloon ñooñu duñu jiite mais faay yi am ci république bi pax ak bën-bën yi am ci système mu république bi moo tax nit ñu minable yooyu mën a feeñ république bi ci boppam moo feebar musul jàkk amalul njariñ askan bi dafa ndóolloo askan bi dafa delloo askan bi gannaaw parce que ñi ko jiite ñoo matu matuñu ci caractère matuñu ci valeur matuñu ci gëm yàlla matuñu ci yërëm askan bi en fait dañu buggul Sénégal jaam du jiite réew ku gëm yàlla moo mën a jiite réew ku gëm yàlla moo mën a jiite réew ñu jël benn pause après ñu dellu si ci waxtaan bi
waa fi ngeen ko dégloo ci émission ba jaaxle tey jii nii mercredi 26 euh, avril 2023 euh, am ay xibaar yu ma leen bëggoon a yëgee rapidement benn tragédie bu am foofu ci autoroute Ila Touba euh, ajuma bi ñu génn la xew foofu ne nañu benn apprenti bu sant fay lañu gis néewam ci booru autoroute bi benn jakarta bu doon romb deux kilomètres après péage yu Jurbel bi moo xool ci booru tali bi rek gis benn néew bu tëdd foofu alors euh, eh bi ñu ko yóbboo hôpital def autopsie gis nañu ay ay gaañu gaañu ci yaram bi gis nañu ko loxo ndeyjoor bi dafa damm colonne vertébrale bi damm bopp bi ibbeeku ah nee nañu que moom apprenti bi fi ñuy teg bagage yi ci kaw foofu la tëddoon alors daanu na te chauffeur bi yëgu ko ñi nga xam ni ñoo nekk ci passager yi kenn yëgul alors comme oto bi ci guddi gi la doon daw kenn xa- kenn kenn gisu ko mu daanu sept heures du matin daal la fa benn jakarta romb gis ko ñaar fukki at ak benn la am li ñuy gis très souvent la loo xam ne lii bu njëkk ay bagages rek lañ fa doon def léegi nit ñi dañ dañ fay toog ñii di fa tëdd di nelaw oto bi daw takkuloo ceinture virage bu ndaw nga daanu kenn du yëg ni daanu nga surtout bu fekkee ne oto bi guddi lay tëdd ah lay daw ñàkk xam fële ci Thiès benn waay moo fa rey benn policier nee nañu brigadier chef Hamdi Samb euh, samedi ci guddi booru 11h ci booru place de France la ko benn benn waay rey Euh, policier bi dafa gis waa ji taxaw foofu di saw waa ji mi ngi sant Sall xam naa nee na comme Sall laa sant rek may mbokk boroom réew mi lu ma neex def policier bi woo ko ni ko interpellé ko bi mu ko interpellé ni ko fii kenn du fi saw waa ji dégg nga maam daal di ko saaga daal di ko dóor kurpeñ boo xam ni benn kurpeñ la ko dóor rek policier bi policier bi xalam bi policier bi xalangoo booy bi bàyyiwul wut benn xeer di ko dóor ci kanamu policier bi di ko dóor ci kanamu policier bi ba kanam ngi mokk rumbax noonu ñu jël policier bi yóbbu yóbbu yóbbu sooy taas dañ ko yóbboo Sowétas muccul après mu mu mu ci gaañ booy bi ko def nag c'est un ancien étudiant nee ko dafa meroon moo tax mu def loolu nee na nag ay jinne ko jàpp parce que moom da daan drogué wu ak di naan alcool papa ji ba mu ñëwee ci police bi nag ñu ne ko yow sa doom ji li mu def rëy na di mu ne wooy parce que dafa jëloon benn wird te xaw benn benn benn benn mara boo ko jox benn wird terrible terrible Fodé
waaw maa ngi lay ziar waaye na nga def waay
maa ngi lay delloo ziar
Mourier ban marque téléphone nga yor di leer na de
sama sama gën a leer de kii di kii di comme téléphone Hollywood yi
i non sajab la sajab am na sajab bu yàgg kii de boo ko bés boo ko yóbboo Thiès day
maalo Idri Idri Seck jël ko da koy ko da koy- da da ciy liggéey da koy confisqué
ne ne ci lay liggéey ah
mu ne ci lay liggéey yii day dàq nay jeeg mu ñëw de
déggoo déggoo bi mu yoroon keroog mu ne mu ne sama téléphone bi laay liggéeyee non dafa dof waaye dafa dof il est possédé Idri Seck hmm?
yiw kon kay kon kay fi nekk nii daa jëfur daa jëfur li wolof naan daa jëfur
dafa yàq image yu Thiès quoi moom
c'est que nag mooy Ousmane Sonko dalee na jëfurloo ñëpp nag billaay dalee na jëfurloo de wuu gars yi ñemewuñ ko non c'est que c'est que c'est que si Ousmane Sonko taxaw lañu ñoom dañ koo séen dañ ko séen nag booy bii booy bi nan la mën a def ñun ñu jëf ko ci politique ci ah Ouais.
yàgg ci politique suñ dund gépp ci politique lañ ko def moom mu dugg yàggul rek mu taxaw fii sénégalais yi toppe ko nii kenn mosu ñoo toppe nii ñun loolu la loolu la leen jaaxal loolu la leen jaaxal
non c'est ma ne ma ne ko ma ne ko de ma ne ko da ngeen a mës a nekk ci dëgg moom mu nekkoon ci dëgg rek kese kese da dëgg moom dëgg moom lu ci kol lu ne du bàyyi non
seen dong la ñuy kolew di bàyyi moom moom mooy ay fen la yàgg di def Ouais.
moo tax dara sa taxaw non daram du taxaw daram du xoolal idi daram mënul tàkk parce que nit nit ñi saa dañu yi de jëfur la nit ñi dañu yàgg ak moom xam ko du nit koy wóolu bala waaye de bala waaye de muy xas sénégalais yi ah ah sénégalais yi lii la ñu ma ne ko ma ne ko keroog bi ma ko déggee mu naan séné muy muy xas sénégalais wala ñi koy voix yëpp ci moom la nekk ñi koy voix yëpp ci moom la nekk exactement
daan ay warkat la ñoo ay fetkat la ñoo aha ah luñ dañuy ñëw di la fett luñ la wax du dëgg te ay warkat lañu lu mu la wax ay lii lañu ba xoolal li mu wax yëpp Ci dama moom.
doog a jàng rek lii lii barke rasulillah ci moom dafa analyser boppam teg ko ci place bi billaa wallaay keroog boo ko déggee dama ne dama ne kii de daa waroon taxaw si seetu rek di wax loolu xoolaat boppam
waaw saa yi ma non gars yi boobu da ngay yombee c'est que ak ay costume man xaw ma ku koy ñëwal costume mais waaw pop pop pop. xam naa mu ne tey non non tey xanaa tey yërëm nginti la dëkk
non yes mais non il il temps yi dafa dof de ndax dafa dof non wéru oh noonu dañuy wéru non temps yi dafa dof c'est que nag booy bi booy bi day def loo nit de non soo ko day def loo nit de je te le jure
moom balaa Sonko di ñëw da sax lay doon def loo carrément balaa Sonko di ñëw sax dofoon na ba pare moom
waaw wax nga dëgg de
ah ouais daa kat a kay di léegi daa kat a kay di Mm.
daa kat a kay di complètement mais xam nga Idrissa Seck ëpp law ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko Abdoulaye Wade di doog a indi ci ku jég bi ñu naan mais booy bi moo kii moo ñaw kii moo mën a wax jàpp ñu naan woy waa ji jàpp mais après dara Cheikh na looloo ko rey léegi dafa yëkkati boppam fu mu àggul woon xam nga nit soo yëkkatee sa bopp foo àggul rek waaw après gars yi dañ lay bàyyi daa ma lay mel da ngaa rëcc mais yaa ngi dégg mi ngi mel ni nga yëkkati sa bopp xoolal ci benn toog ci benn branche gars yi gars yi gars yi xëcc xëcc dànk seen bi bàyyi la bàyyi la
looloo ko dal looloo ko dal on nunda looloo ko dal dafa am fu mu- fu mu tegoon boppam way moo tax soo gisee yuy wax sax da nga naan da nga naan non man keroog moo ko déggee mu naan oui vous savez man ah suñ ma falee ah xayrul suñ ma fayal ñoo xama sénégalais yi waaw man man man je n'ai plus rien à chercher parce que man j'ai j'ai mon bureau à Princeton en Chine je travaille wala bi ñuy wax loolu daa def ko ci bu góor gi góor gi yu yi weesu nañ ko de billaay weesu nañ ko wallaahi mën a wañi ay mën a wañi ngay toogal di waxal gone yi ñun gone yi léegi ñooy ñooyor ay ay ay bureau fu nekk duñu xam nga yooyu fan nga ko daan wax xam nga fan nga ko daan wax jamonoy jamonoy ñoom Abdou Abdou Diouf ak yooyu nga xam ne ñi daan génn bëriwulu wallaahi ak ñi jàngi woon ci bitti bëriwulu wallaahi ah wallaahi mais léegi nga toog di wax wax yooyu nit ñooy lay ree sax waaye ma ne la nit ñaa ngi toog nit ñaa ngi toog biir Thiès di régler di di dugg ci seen bureau bureau bàyyi ko rek di régler ay Chine di régler Amérique affaire yoo xam ni moom ci boppam bureau physique bi mu am sax du ko régler
déggoo li ma la wax ma ne la ma ne la da ngay toog fii fii ci New York gii di liggéeyee benn compagnie bu nekk Dubaï wala benn compagnie bu nekk Chine wallaahi ngay travailler i i i di xam ñu lay fay ñu lay fay ñu lay fay sa liggéey xamul li xew on noonu dajee waa ji xamul li xew di la transférer sa xaalis say compte xamul li xew
t'as pas besoin de bouger non
non moom da léeg-léeg nag ma ne ko ma ne ko dafa ma toogee damaa toog ko yàgg ma ne non kii kii kii kii ndeysaan la waaye xool ko xool ko pour moom li mu wax nii lu rëy rëy la xamul léegi xamul léegi Non, xamul.
xamul ne léegi non xamul léegi il est dépassé ils sont très xoolal il est dépassé waa ji il n'est pas à jour bu xamul li xew non dafa dafa très bien il est pas à jour Mm-mm, il n'est pas à jour
ba à jour bu ñu ngi ndeysaan def na ma fi fi naan maa fi dugal internet waaw.
ci Sénégal maa fi dugal internet ay non xoolal non baax na xoolal mais dafa kii quoi xam nga dafa dégg ci keroog kii di wax benn affaire bu bu frappé ma euh, kii euh, Babacar Endo waaw wax benn affaire bu garaaw benn benn benn kii la def benn allégorie garaaw la génne Mm.
mu ni mu ni Idy dafa mel ni jamono yi nga xamee bi ñuy nekk ci koñ bi yenn jamono yi nga xamee daawuñu génn bi grand yi njëkk a tukki waaw mu ne grand bi dafa nekk ci koñ bi grand bi njëkk a tukki génn dem extérieur boobu ñun xamuñu dara nee na grand bi di ñëw ci ba grand bi ñibbi si ñëw ci koñ bi su ñëwee vacances xam nga xale yi jigéen yi topp ko nit ñi topp ko xam nga grand bi di am lu muy dégager ci koñ bi nee na boobu ñun ñu nekk ay xale quoi comment nga daal si grand bi grand bi si grand bi nee na ñëpp faa ko nee na grand bi nekk di di di foye di foye boppam est-ce que yaa may dégg ba mu xëy nag delluwaat dëkk ba nee na nee na grand yi delluwaatee réew ba nee na toog lu yàgg yooyu xam nga ñibbisi fekk booy yi xayr ñoo tolloon foofu di fekk ay booy yu ndaw daan lekk seen i laax njënd booy yooyu ñoo màgg ñii jàng nañ ba génn ñii tekki nañ ñii dem nañ jàngi biti réew ba ñibbisi ñii ku nekk grand bi ñëw la mu incarné woon ci jamono yi xayr booy yaa ngi nekk mu bëgg a incarné waat loolu waaye wallaahi yaa ngi dégg maanaam bu ñu gis ci koñ bi bu ñu gis ci koñ bi daa di jéem a li mu doon incarné waaye maa leen gën a xam ak maa leen gën a lii fekk na moom booy yi fi bàyyi woon di lekk seen laa booy yi màgg nañ ci yàgg ba génn dëkk la ba dem ci réew yi jàngi ba nekk ay kilifa yu mag ba ñibbisee ak yooyu di dem ak a jëw takk seeni soxna tabax seeni kër nee na grand bi amut kër amut jabar yaa ngi dégg bu dee Idriss Seck genre grand yooyu la noonu la mel ci société bi maanaam noonu la ko gisee bu diggante ak société Effectivement.
léegi day bëgg di ñëw di wane ne man maa xam Europe maa xam lii fekk ne xamul ne booy yi mbàyyi woon fii génn nañ dañuy dem Europe yow dañoo dem te jàng wallaahi xam nga li ma la wallaahi ba ba de- ba nekk kilifa yaa may dégg di ñibbisi foofu di dem di ñëw grand bi ñibbisi woon dafa ne la fu bàyyi woon rek moo fi ne on noonu dajee bu ma doon jëlaat place am non maa ko ren bi mu ko waxee dama ree xoolal dama toog a jàng ma ne pourtant il a raison c'est-à-dire que mu ne grand bi dafa xamul ne waa koñ bi romb nañ ko bu yàgg mooy ndaw yooyu mu doon fekk barke foofu rasulilaay on noonu dajee wallaahi nee na te grand bi jot a réalisé jot a réalisé jot a tabax kër jot a takk jabar dem ma magee xoolal lii rek
léegi nag léegi nag mu bëgg a fipp nag wane na nag moom fa mu nekkoon daal la nekk ba léegi kenn du ko gën a kii Mhm, moo Waaw.
njëkk moo njëkk tukki moo mu nekk nii njëkk looloo ko dal fi nekk nii looloo ko dal
non c'est grave hein.
mais mais dama ko déglu ah dama ko déglu rek ma ma ne tee ma ne baaw ko endoon ñii rek boo xam iri la Yeah.
mu ne gars final ba dañuy fipp ci koñ bi ku wax rek ñu ñu mer dëgg la waaw parce que ñoom autorité bi ñu yoroon lañ gis ne yoratul ko fenn fenn fenn wallaahi nit ñi romb nañ leen bu yàgg yàgg léegi nag bu bëgg imposer notoriété boobu ma ko wax mu dal sa kaw
ah non il dit c'est da waar quoi man je sais pas dafa quelque part daal psychologiquement il est atteint quoi xanaa gars yi daal am na non non je te jure je te jure am na dëgg daal dafa doon di nelaw way y a quelque chose booy romb ko booy ma ne ay sudam juddu nañ si ma dem ya léegi nii ñi muy waxal ñii ñett ñi ma ne mën nañ ko sët je te le jure problème moom mooy amul dara lu mu mën a jaay kenn fi nekk jamono bi non non non non non
xam nga ay jamonoom jamono boobu dëkk bi ubbeekoogul ini jamono eh bien non dëkk bi ubbeekoogul noonu xam nga petit à petit les choses étaient un peu fermées ya ay benn rajo ak benn télé fi nekkoon xam nga mais jamono bii nga xamante ne bii gaye na ngay toll mbadaxun li xew la xew la xew Washington à la minute nga koy yëg nga xam ko wallahi ah daa bokk ak daa bokk ak jamono boobu nga xamante ne benn benn rajo la ñuy teg ci di Waay.
digg bi sama maama koy taal nit ñi di déglu ouais ah benn télé su paa bi wàccee ngoon gi la ñuy taal télé bi suñuy suy tegee reer bi mur ko teg ci teg ci benn teg ci benn benn potu fleur ci kaw waa koñ bi yëpp ñëw toog di seetaan
ya mu nekk benn journal ñu naan journal télévisé moo jeexagut ñu naan ban film moo am après journal yooyu la woon wallahi jamono yooyu jamono yooyu loolu jamono boobu neex na nga nax neex na nga nax aha euh, population ya
mais jamono bi wallahi télé ci poos la jamono bi télé ci poos la barke rasulullahi
Eh, il est dépassé très dépassé mais Fourier moo tax ñi xam Mhm.
yegali nga ni ñi xam Eh, ku mel ni ñas ñas ñas ku mel ni ñas xam na ne il est dépassé moo tax mu xaw a retiré wu wallahi
nga soo mbir mi soo teelu xam sa bopp rek àdduna wan la boppam gis nga ñi ci xam seen bopp ñëpp ñu ngi rocceeku ndànk waay
yee te coow du jib coow du jib ñu wax wax ju bari sax mais sinon sinon xam nañ ne ils sont dépassés way sinon sinon rek toroxte moo leen moo ciy mujj wala ñu ñàkk yee ñàkk wala ay bàccili bàccili dem na ay bàccili dem na ñàkkal xam la nga ya ñàkk ki ki nelaw temps yi passé yàlla ko yàlla yërëm kokal la waaye PIT boobu aw danson am mooy ki yoroon PIT ki yoroon PIT waa ji seen
waaw seen waaw xam nga mhm.
ñooñu ñëpp même génération yi la rek waaye même général ay ay ay xam nga
ya waaw te ñooñu ñëpp presque dañu commencé woon retiré wu ndànk wala ay Landing Savané déggatoo ko fenn
xam nga Fenn.
parce que nit ki da ngay xam sa bopp da ngay xam sa bopp xam nga ne yee da ngay xam sa bopp ya
xoolal ay Landing Savané tey jii xam nga mënut a ñëw fii naan day xëccoo pour jël réew mi ay wo gars yi dañ naan ko yow foo jógee non non yaa yow la wax wallahi yow gisee nit da ngay xam sa jamono xam ne sa jamono su la rawee raw na la c'est fini nga retiré wu ndànk ci làng gi bala nga cee torox wala nga ciy kii waay ñàkk ñàkkal la idi nag looloo ko dal fi nekk dafa bëgg a forcé wu ci biir génération yi waay waay génération yi mënu leen a jiite sax non non mënu c'est leen pas, a jiite c'est pas sax possible et su defee ni su defee ni ku def li Abdoulaye Wade boo yàggee ci opposition bi di nga yàgg di nga mu- mujj nekk président bu fekkee ni loolu la xalaat day ndax boppam de waaw bokkul ak wàdd de non bokkul bokkul ak wàdd de bokkul ak wàdd bokkul Wade ko ëpp wërsëg fuuf parce que Wade xam nga sax Wade à la limite demoon na ba pratique moom wax na ko sax ni ah, moom presque bàyyi woon na gars yi ñoo ñoo ko jël si Paris foofu bañ koy jël si sax Yeah.
paasu métro sax amu ko eh bàyyi bàyyi wala dañ koy jël ñi paasu métro daaw wàdd en deux mille waay yow deux mille su jël woon nguur gi day su jël woon nguur gi dootul ñëwaat ma ni la nit nee na ma gis na Abdoulaye Wade mu tëb ci métro bi di burle laa la wax
tey bëri ko
ma ni ko ma ni ko kon nag gis ma ni ko gis gis nga lu rëy
sëñ Modou Samba ngi ñëw de ah ma ni ko de ma ni ko gis nga lu rëy mais mais baa bi yoratul woon dara dara paa bi yoratul woon dara paa bi yoratul woon dara non, de- ñoom ñi ko ñoom gis nga gars yi ko gars yi ko ñëw jël si nag ñoo xamoon exactement yoon bi dañ ko xamoon gars yi xaw ma dañ ko listi dañu listi xaar affaire bi xaw ma mais daf leen wóor ni Abdoulaye Wade bu ñëwee dana gagné parce que waaw jàmm parce que boobu Abdou Diouf moom est fini ah comme man la gis nga waxuma la, doggali rek moo ci desoon doggali waxuma la Abdoulaye Wade mais bukki sax boo ko indiwoon jour boobu bés boobu euh, euh, année boobu moom, euh, bukki bi gagné mu daan Abdou Diouf easy
Mhm.
nit ñi dañu toll woon gis nga loolu day dégg gis nga nguur nguur nguur moo mel noonu nguur am na noo ciy toll rek da koy bàyyi bala mu laay bàyyi
te bu la da koy bàyyee bàyyi bala mu laa bàyyi bu la bu la bàyyee sa bakkan xaj na ci ah
oui Senghor rek il a été foofu noonu Senghor il a été très malin Senghor foofu la leen rawee moo xamoon na ne nguur gi a ngi koy bàyyi voilà
mu daay teel a bàyyi nguur gi
bu continuer woon rek affaire yi jaxasoo waaw waaw te Senghor bi bàyyee sax dégg naa am na benn grand place bu nekkoon côté boobu noonu côté point E boobu kii nu mu tudd sax Alphane xaw ma an te fii seen côté boobu ñuy dëkk rek dégg naa dafa daan dem nii di toog foofu ah boobu yi ne nekkatul woon président mais da daan dem foofu di toog foofu ci taatu garab gi grand place bi si grand place waaw mais kii côté Fann Fann waaw Fann point E ah bon ah Fane côté boobu ñu nekkee xaw ma nu mu tudd waaw boobu doon mooy seen seen kër yooyu rek.
Waaw.
nekk foofu Fane la noo.
Mhm, waaw waaw. daa am na benn grand place bu nekk foofu nga xamante ne bii dafa dafa daan dem fa la daan di toog.
ci àdduna
yuy doog a bàyyi noonu. yee mais xam nga xam nga nguur soo ko bàyyee rek gars yi dañu la wax dara mais su su la bàyyee nag foofu ngay sonne.
waaw effectivement
yaa moo tax kenn du ko forcer.
kenn non baaxul su ñëwee rek jëlal.
daa wallaahi mais bare bu la leeree ne mu ngi mu ngi loolu loolu de di dem falal jëlaat ko ndànk wallaahi dem ak sa jàmm waaw billaay bala ko yàlla fokkati parce que suñ borom loolu laa de fokkati la wax de wallaahi
dana ne nguur maa koy joxe waaye maa koy fokkati xam na ne xam na ne nguur ku ko jàpp doo ko bëgg a bàyyi doo ko bugg bàyyi doo ko bugg bàyyi doo ko bugg bàyyi mais Fourier
waaw
euh, se- se- se- seetlu nga mbiru mbiru euh, Babacar Touré bi
mooy convocation bi waaw gars yi téye nañu xam nga
waaye il paraît que benn waaye ko porte plainte ko mais def na ci benn affaire démb la déglu woo ko nuuma ko
nee nañu waajee euh, presse bi dañ koy présenter comme benn euh, policier renseignement généraux mais waa ji en fait 2014 la lañ ko dàq ci police bi tëdd na fi kaso deux fois ci dañ ko dàq fan police
ah
deux fois tëdd na ko kaso fast forward waa ji il s'est retrouvé dans l'entourage immédiat de euh, Adji Sarr moom Moustapha Babacar Touré wone na benn vidéo ñu wone waa ji nekk juste ci gannaaw Adji Sarr muy jox ay ay instruction Adji Sarr Adji Sarr à un moment waa ji moo teg loxoom ci mbagam ni ko tourneel ñu dem comme comme garde du corps sol costume bu bleu clair nii waa ji saa yu Ousmane Sonko doon dem di wuy ji juge bi waa ji souvent mi ngi woon ci couloir bi joxe apparence su policier en civil wala renseignement généraux mais dañ ko planté woon ci entourage immédiat wu Adji Sarr ci koo xam ni yow bokkoo renseignement généraux bokkoo ci police mais Babacar Touré dafa joxe benn information nee na dafa am benn tubaab bu bu ñu rey bu ñu rey Sénégal waa ji turam daf ci tax le Casamance bi euh, Ousmane Sonko waxoon ci benn euh, point de presse ni que traître la jaam la ñu ngi tudd Napel Napel la sant
waaw waaw
waa jooju moom moo porté plainte Babacar Touré mais question bi may posé wu mooy naka la waa ji def Waaw.
ba retrouver wu ci environnement wu Adji Sarr Adji Sarr di def ay appar ay ay apparition en public ci tribunal wala muy nekk ci biir système bi ci biir couloir bi fii dem ci chambre juge bi di jaxasoog policiers yeeg gendarmes yeeg renseignements généraux yi et puis di wër di woote ni moom renseignements généraux la man musuma gis kuy woote renseignements généraux ñëpp xam sa tur alors affaire tubaab boobu euh, ñu ñu ko taxal tubaab bi dafa nekkoon Sénégal am benn association mooy association gars yooyu xam nga affaire tubaab rek di yéeg ay montagne ak a wàcc ay montagne association la fa defaroon pour préserver environnement bi littoral bi waa ji dafa Waaw.
dafa jote woon ak beneen sénégalais bu sant Samb benn jour xaw ma ñoom ñaar lu ñu jote foofu ci biir euh, ci ci banlieue bi waa ji waa ji sant Samb dugg ci otoom di dem tubaab bi langaamu ci oto waa ji bañ a bàyyi oto bi waa ji di zigzag ci tali bi di zigzag ba tubaab bi daanu dóor bopp bi ci tali bi bopp bi xar par hasard waa ji nappel boobu doon romb fekkee affaire bi mu wàcc ñëw gis pompier yeeg mu ñëw yor benn walkie talkie yooyu ñëw présenté wu ne leen ma- moom la commissaire nappel récupérer pièce u tu- tubaab bi dem ci oto tubaab bi récupérer fa benn benn benn fetal ak la fa tubaab bi bàyyi woon dugg ci otoom dem dafa départ rek gendarme yi yegsi bi gendarme yi yegsee ñu ni pompier yi ana pièce u ana pièce u euh, tubaab bi pompier yi ne leen waa ji fi jóge léegi dafa ñëw présenté wu comme commissaire ramassé na lépp yóbbu gendarme yi bàyyi bàyyee ko xel ba benn jour yàlloo yàlla gendarme yi dajeeg waa ji ci otoom booru rond point RTS ñu arrêté ko yóbbu ko ñu jàllale ko tëj ko kaso waa jooju moo mujj ñëw nekk ci biir système bi di protéger Adji Sarr bu ñu wootee Ousmane Sonko ci bureau juge bi mi ngi ci couloir yi jaxasoog policiers yeeg gendarme yi nekk en civil kan moo ko fa planté ak lan moo waroon doon liggéeyam affaire boobu la Babacar Touré au lieu de kay
ñu woo ko dikk Babacar Touré kay dafa génn secret
waay ngan di mbóot la secret bu doy waar la génn ngan di mbóot ngan di mbóot la suli
léegi nag dootuñu bëgg mu wax loolu ñu téye ko
looloo tax ñu jàpp ko xam nga dootuñu bëgg mu waxaat waaw dama loolu parce que dootuñu bëgg mu waxaat
xam nga dañ nekk ci mais moom waruñu ko woon ba waruñu ko jàppe noonu parce que su fekkee rek kee da ko porte plainte mu ñëw ñu war ko entendre dañu waroon def de waa ji dafa waroon ñëw ñu def confrontation ñoom ñaar mais ba mu demee tey dañuy yokk yeneen accusation ci dossier bi ay diffusion de fausses nouvelles ak ay insulte ak injure lu nekk lañ ci yokk ah.
waa gars yi loolu la ñuy def léegi looloo seen kii léegi Le- dangay ñëw xoolal ñu dóor la ñu ñu jël seen i termes yu bari jaxase jaxase sàpp la ko su ko defee mën naa dóor mën naa dóor mandat de dépôt ma ni la xoolal noo def dem instruction te instruction minimum six mois
waaw su ko defee doo wax minimum six mois
non Sénégal Sénégal ñu ngi seetaan lu rëy a rëy rëy ñu ngi seetaan lu bon a bon a bon a bon Macky Sall ni muy tëjee nit ñi dafa dafa doy waar.
gars yi gars yi gars yi gars yi xamuñu li ci xamuñu li nekk ci kaso sax ni gars yi ku wax ku ŋaan ku ŋaan rek ñu jël.
non jëlatuñu dañuy ramasse léegi dañuy ramasse
et puis ku ñëw ñu yóbbu la instruction.
six mois
waaw
dañu nekk ci vraie république des juges léegi
ah. ah lii kay dictature la moom. lii moom dictature la de. dictature vrai vrai dictature mooy bi.
man na sama wax ju bëri mais yi mais mais mais dañuy toog rek di seeraat nii.
Fourier
waaw.
sama wax ju bëri yi léegi moo wàññi ko
Mar da ngay may Mar da ngay may da ngay may ca cëpp Sénégal ci aéroport bi ñu ne la ah yow yaay kii yow kaay.
dama damaa yor damaa yor damaa yor ay tout tànk
ah ma ne ko ma ne ko Mar Mar da ngay may ca cëpp day cëpp ci day cëpp ci aéroport bi rek gars yi ne la.
non de xoolal dañu lay taxañ gars yi gis pièce bi rek daan na la gars yi taxawee nii.
dañu lay taxañ
nga nga dem ñu door ñu commencé door ay kii.
waay ah teg seen seen kii yooyu doon tegal la ay ay chef d'accusation.
ba ngay nekk naan leen Amérique laa jóge ñu ne ah ak ñoom gaaw ci injure publique man injure publique laa xamut man bi daal baal la bay injure publique kenn xamul lu mu doon
injure publique diffusion de fausse nouvelle bari na temps yi de am na beneen am na beneen am na beneen
Hmm?
outrage au magistrat waaw outrage am am na beneen aan Mhm. yooyu la ñuy wax de am na beneen aan Mhm.
def naa kat kat yooyu moom gars yi moom rek la ñuy balancer ku ñëw ñu dóor la ci
non c'est c'est ku ñëw ñu dóor la ci c'est grave hein moom kay képp kuy wax balaa fi balaa balaa balaa 2024 képp kuy wax tàmm wax ci dëkk Waaw.
bi te waxoo lu jëm ci saawaay lu neex mag yi danañ la convoqué danañ la jàpp dinañ la tëj waaw pour léegi dañoo bëgg léegi pour pour xam nañ ne ñoom fa ñu jëm fa ñu jëm Macky fi mu jëm ah, buggul waxkat yi nekk ci biti
arrangé wu ko parce que la mu bëgg a def waaw waxkat yi suñ nekkee ci biti du met du daax ci moom loolu tax mu bëgg a rabaraas ñëpp dugal ci biir kaso bi
ñëpp loolee tiinal nit ñi ma tiinal nit ñi ma kenn dootul bëgg a tee wax kenn dootul ñimee tee wax
ah man de mais fii c'est ce qu'il est en train de faire hein.
man de temps yi moom man sama sama sama tànk na yow na yow na yow jàmm rek yow yow sa jàmm yow moom sa jàmm jàmm rek
sama tànk sax dafa bëritul sama tànk sax bëritul ci rajo bi xaw ma boo ko waaw sax waaw la may lay waaw la may kii. bi nga waxee léegi maa ngi lay déglu léegi nii avant may dugg. am na benn wax wax ma ya wax ma wax nga de waxuma ko de.
ah du man maa ko wax.
ah ilaahi aka ma koy baax
eh aka ma koy baax
mais mais mais mais mais mais mais lii war nañ cee jóg nag de. lii war Ah.
nañ cee jóg lii c'est trop. lii c'est trop. lii c'est trop.
Hmm?
mais un un journaliste. journaliste. génn ay affaire am.
Hmm.
d'abord journaliste investigation eh, kii la de oh.
Hmm.
moom moom journaliste investigation lay def non.
waaw waa ju wex moom ah mais mais moom- su nekkee investigation kay. kon kooku kooku kenn waru ko téye.
mais waa ju yaru moom du saaga du du yi ñu koy kii yëpp du ci def dara waa Casamance la ñooñu xamuñu yooyu xamuñ ay saaga yi xamuñu ko waaw mais mais xam nga li muy wax moo leen arrangé wul. c'est que waa ji c'est que waa ji dafa yàgg di génne ay mbóot.
waaw
te mbóot yi arrangé wu leen.
ma ne la bu ñu newoon Babacar Touré waa waa waa waa waa- waa Kajoor laak yooyu sax day saaga ma ne ko sévère mais kii waa Casamance yooyu ñoom xamuñu yooyu duñu saaga
non non non non non lii lii lii war nañ cee jóg ah lii c'est trop.
ah lii c'est trop.
ma ne la non non Macky Sall li muy li muy- li muy def nii li muy def nii ñi ñi gars yi ngi seetaan de mais lii c'est trop de.
man de fi mu ne nii danaa wàññi samay tànk ci rajo bi sax nekk ci dëkk kenn dootul wax journaliste dootul wax Hmm.
kenn dootul wax loolu lañ bëgg.
doy na waar de man damay wax ba ci- damay wax ba ba ca kaw damay wax damay wax damay wax ba wax ba wax su wax nekkut waaw sama yoon nekku ci maa ngi ñëw maa léegi ma dem Sénégal sax ay ah
saa wow
nee naa leen ma demee dinaa wax ba wax ba wax fu wax nekkut nañ ma téye man de Nouakchott laay wàcce waaye dañoo moom nit ñi nag Nouakchott laay wàcce léegi duggee duggee Rosso duggee Rosso
ah léeg-léeg ah léeg-léeg léeg-léeg mais lu nekk bi rafet yor yooyu yor sam dëkk moom sam dëkk moom sam dëkk ci ne la dëkk bi léegi kenn dëkk yor yi ba sàll moom ba sàll moom daa dama am benn parcelle biir biir Sénégal wala maamam yeah c'est c'est doy na waar amen doy na waar de affaire bi Ah.
affaire bi affaire bi ça fait ça fait peur hein eh ñi ngi seetaan ñi ngi seetaan ñi ngi seetaan lu doy waar de di daa ñi ngi seetaan di waar bi mais lii c'est trop de lii c'est trop
day saa yi c'est c'est c'est te xam nga li mu bëgg a def nii ay affaire dialogue bi muy woote nii ah
tas tas kii bi la bëgg tas F24 bi
waaw seen groupe bi
waaw groupe bi F24 bi la koo tiital de war a bëgg ko tas xam nga man damaa jàpp ni dafa isolé woo xam nga mbir mi xeex bi yëpp Ousmane Sonko la woon waaw léegi moom mu jël affaire yëpp concentré wu ko ci Ousmane Sonko isolé Ousmane Sonko par rapport ak ñi ci des nga xamante ne bii xeex bi fu ñu toogee dañ naa Ousmane Sonko fi indi fitna Ousmane Sonko Ousmane Sonko si amee dégg jëm ko diaboliser ci kanamu jëm ko diaboliser ci kanamu kër Serigne Seck fu nañ ñu tuddi Ousmane Sonko mooy borom fitna bi moo indi jàmm moo indi coow li ci biir Sénégal xam nga loolu la doon def pour léegi su ko defee lu mu mën a dal ci kawam kenn du mën a wax mais comme F24 juddu na te par exemple su F24 bii juddoo suñ commencé def manifestation ah ah ba mu génne fii ba suñ commencé def manifestation ba mu génne fii gaa policier bi Sénégal commencé am problème su keroogee dootul tuddee Ousmane Sonko su keroogee xam nga ñëpp dañ ne dañ ko joxoñ ne ko nag mbir mi nag yow ak kon loolu la tax buggul àgg foofu buggul àgg buggul àgg ak gars yi ci ay manifestation moo tax fi nekk nii dialogue bi jaral na ko lu nekk waaye dialogue bu xam nga pour lan la pour tas groupe bi tas groupe bi effectivement loolu la bëgg
seetlu nga ko ni mu waxee keroog ah oui mais mais non kenn ku ne am na lu mu la tegal kenn ku ne am na lu mu la tegal war na ne yow am na ku mu la téye c'est vrai
seewoo ngeen seewoo ngeen ñëw waxtaan si Mhm.
su ngeen ñëwut waxtaan si nag dinaa def lu ma neex
mais xam nga ma mel ni noonu la waxee ak ñoom waaye non non mais il il a été mal conseillé quoi Macky Macky amul conseil yu baax
ah amul- non amul conseil yu baax non wa waxi koomo la wax waxi koomo Waaye- mel ni ku moom nit ñi waaye
yow ñu fal la ñu fal la rek jël nguur jox la nga mel ni yaa moom nit ñi waaye non c'est c'est c'est et puis un président bu toog et puis un président bu toog di wane ne ma- man maa bàyyi kii mu dem wala maa doon bàyyi kele yi maanaam yéen seen dem élection daal mu ngi dépendre ci man quoi waaye non dafa dafa dafa weere keroog ah loolu la wax keroog ah loolu la wax carrément Waaye dafa weere dafa dafa weere quoi I mean, c'est- c'est c'est terrible yow un président de la république nga toog di wane ne yow demu élection nit ñi mu ngi dépendre ci yow loolu loolu da waaye
non ndax c'est ñun Sénégal war a ñoo jóg de bi ndax war a ñoo jóg kii dañoo war a jóg ñun ñëpp fekk ko fee mu toog ci palais bële
non c'est c'est moom mu xam ne mu xam ne nguur gi mu xam ne nguur gi dañ ko koo dégg moomu ko
non c'est c'est c'est parce que moom pour moom moom moom nguur gi ah waaye
ah te ne kaay wax la nag gis nga léegi nga gis commencé gars yi commencé yollee ko di dem naan dañuy dañuy dañuy négocier ji aha c'est vrai gars yi nga xam ne dañoo ragal doo jënd la fii te daanaka rek léegi nga gis gars yi xaajaloo ñii naan non dañ dem wuyu ji ñii naan non non non ñe- fële ca fa lañ jëm nag ba bu ñuy yëf yi tasaaroo te saa yi dafa leen a teel a arabtu parce que saa yi xam nga ne bés bu ñu teelee bés bu ñu jógee commencé def ay manifestation imagine toi F24 def manifestation. yaa may dégg waaye loo loolu parce que force vive yëpp la F24 am na ay syndicats yi ci bokk.
waaye
te xam nga syndicat moom fu mu jógee cib réew baaxut cib réew parce que syndicat moom grève lay teg waaye ay grève am lay teg réew mi paralysé économie paralysé bu fay xam na xam na xam na lim jàkkaar lool de moo la tax bëggul mu jóg loo tax mu bëgg nag mu bëgg nag léegi fi nekk nii mu jóg mu bëgg a jaar ci affaire bi daal di koy daal di koy daggat maanaam balaa joo jóg mu daal di tasaare groupe bi loolu la bëgg non non Macky Macky du nit sax billahi
wallahi
grand ari ñoom grand lay ah ñëwuñu tey
ah non la man ñoom grand lay lay lay lay lay lay lay dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa jàpp dafa jàpp benn benn affaire tey nee na dañ ko dig dañ ko dig supp grand grand Thiam rek ak grand Malick gay Mali jot naa ko sànq jot naa ko sànq Ibrahima yee dafa dafa ma- ma koy woo sax dafa nekkoon ci liggéey
gars yi koor gee leen jàpp koor gee leen jàpp fi mu ne bàyyeegu leen de
waaye man man man man man keroog bëggoon ba lundi bii nii ak mardi bi waaye maa ngi bëggoon a dugg waaye koor gee ma bàyyeegul woon aha par mat nelaw teel a nelaw dama nelaw gay waay yaa mori mo baalu bàyyi la waa xam naa ba suba waay jërëjëf waay
alright man ok jërëjëf waay all right voilà Okay, donc thank gars yi you.
euh, fii lañ koy euh, fii lañ koy yemale incha allah xam naa ba ba ba suba incha jërë ngeen jëf waay